amma suli ma bisa mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaam ala asrafil anbiyaa'i wal mursaliin wa ala aalihi wa saxaabatihi wa asna xadiimihi wa sallama tasliim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk yu bokki jullit bokki lislaam noo ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd di leen siyaara ci barab bu tedd bii nga xam ne mooy albuqaatul mubaaraka di njaareem di kër gu mag di leen nuyu ci buntu kër gu tedd di buntu kër sëriñ Mor Mbay Cissé ci daaraam ji nga xam ne mi ngi ko sos ci ndigalul sëriñ Touba ndax sëriñ bi mi ngi fi ñëw 1912 la Serigne Touba ñëw njaareem tolloo woon ak weer wi ñu nekk di weeru tamxarit moom lay junj ci mbindam di wax naan raamu masiri ilaa njurbel la daa lasasin la waayanoo sherra maa fi sayri ma raamu fa sayru mawtun ala man nasahu wa azan wa annahu liya ibqaun wa ikraam kon njaareem sëriñ bi 1912 la fi ñëw ci weeru tamxarit tolloo woon ak ñaar fukki fan ak juróom ci tamxarit la sëriñ Touba ñëw njaareem talaata la fi njëkk a fanaan tolloog guddig guddig ñaar fukk ak juróom-benn bëccëg gi di ñaar fukk ak juróom waaye tamxarit it la Serigne Touba génn njaareem euh, xam ngeen ne bésu tamxarit yi nag bu jotee tolloog bésu xaasuraa bi dañ ci digle siyaare yi ñu ciy def yu bari la. waaye dañ ciy tànn rek zawrul alim siyaare boroom xam-xam buy jafe xam-xamam loolu moo tax bis bi bu jotee euh, waa njaarim gépp daañu génn def ndigal yooyu waaye danañu ñëw siyaare si kër sëñ Mor Mbaye Cissé ndax li mu nekkoon di borom xam-xam boo xam ne daf daan jafe xam-xamam moo tax tey rajo bii wala télé bii di Lamp Fall noo ngi nuyu bu baax a baax kilifa ga di sëñ Aliou mi nga xam ne mooy kilifa télé bi di jaarale sunu nuyoo ci moom nuyoo bi wéy dem ba ci sëñ Ibrahima Guèye mi nga xam ne mooy directeur bi ñoo ngi koy nuyu di ko siyaar di nuyu itam mboolem techniciens yi ñu ko àndal liggéey bi yëpp sëñ Fallou Galassi la mi nga xam ne waxtu wu nekk mooy bàyyi ko Mbacke wala mooy bàyyi ko Touba di ñëw di nu jël ñoo ngi koy nuyu di ko siyaar di siyaar mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal jataay bi ñëpp sëñ Ndiassy Dioum mi nga xam ne jawrini sëriñ bi la bokk ci waa daara ji nekk ci Mexico ak mbokki taalibe yam fi nekkal mi ngi nii euh, sëñ moor Sourang nga xam ne moom itam mi ngi bokk ci turandooy sëñ Mor Mbaye Seye mi ngi nii yam ci jataay bi mooy borom couturier sëñ moor Mbaye Seye di jàmbaar moom itam lool ci liggéey bi naka noonu itam euh, jawrini daara ji gone yi ñoom ñëpp ñi ngi fi euh, bu ko defee léegi ni ñuy def mooy dañuy dugg ci biir daara ji bu ko defee mën sëñ bi ñu waxtaan nag tuuti nag ci bésu bés bi ak daara ji euh, waxtaan itam ci programme yi ak liggéey bi nga xam ne sëñ Abdou Lahad Cissé mi sëñ moon mbay Cissé noo ngi ñaan suñu borom yàggal ko te wéral ko euh, liggéey boobu mi ngi mi mi ngi koy liggéey ci biir daara ji ci yeesalaat barab bi ak gën a dundalaat liggéey bi ndax euh, daara ji wax naa ci bi may tàmbuli ne sëriñ Touba moo joxoon ndigal maamam di waajuru sëñ Mor mbay Cissé muy maam Ndiassé Cissé ngir mu mu mu fondé daara ji Serigne Touba ngi fi ñëw 1912 laa waxoon 1913 la sanc kër gu mag ci la jox ndigal Serigne Balla Coro mi nga xam ne moom la Serigne Touba joxoon quartier bii booba mu yoroon ko di dagg kër yi sëñ Balla Coro moo daggal kër gi nekk ci sun gannaaw sëñ Balla Coro moo ko daggal maam Ndiassé Cissé ci ndigalu Serigne Touba ngir jàng alxuraan ak jàngale ko ndax sëriñ bi lim nekk fii lépp. da daan wax ne gémmiñ de buy wax ne buy gëm ne gémmiñ dana jàpp nit sëñ Tuubaa nee na la muy jàppe ne gémmiñ jàpp na ko moom sëñ bi mooy mu ñàkk a toog Tuubaa di fa jàngale alxuraan nee na loolu moom gémmiñ la def ne la jàpp ne loolu gémmiñ la ci moom euh, te it euh, dafa wax ne euh, wa afdalu naasi la si taallama quraana rabbihi wa xayran allama sëñ Tuubaa daa wax ci masal ko jiraan kii ki gën ci nit ñi mooy kiy jàng alxuraan di ko jàngale loola addis ba la nu nettaliwaat ndax yonte bi saa waxoon na ne xayrukum man taallama alxuraan wa allama yonte bi moo gën kon moo gën moo mën a xam ñi gën moom nag moo wax ni ñii gën mooy ñi jàng alxuraan te di ko jàngale kon euh, loolu liggéey boobu ci la sëñ Mor Mbaye Sy nekkoon moo moo taxoon Serigne Touba itam tànnoon daara ji pàkk bi jox ko ndigal waajuram maam Ndiasse mu nekk fi waaye yàlla dogal na nag biir daara ji ñu bari jaar fi ni ma ko waxee woon ci émission bee ñu doon def ci Jazbul Murid waxoon naa ne doy na rek ci Serigne Touba kii fi nekk di Serigne Touba di Cheikh Mamadou Mountakha te yàlla dogal na mi ngi ci dëkk bi fi lay ñëw Achoura yàlla dogal na euh, moom Serigne Mountakha ñoo ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko moom ci boppam ci daara ji la nekkoon fii la doon jànge alxuraan Cheikh Mamadou Bachir mii wayjuram da ko boole woon sëriñ Serigne Moustapha moom sëñ Daam Abdourahmane Lo mi nga xam ne mooy wayjuru Serigne Bachirou Lo mii imaamu Masalikul Jinaan Serigne Bachirou Lo moomu moom itam fi la nekkoon sëriñ Moussa Gueye moo ko yoroon waaye waajuram sëriñ Moussa it Abdourahman moog sëriñ Mountakha fii la leen Cheikh Amadou joxe woon ñu fiy jàng alxuraan kon daara joo xam ne 1913 ba léegi ay nit ñi ngi fiy jàng alxuraan di ko fi bind di ko fi mokkal yaakaar naa soo ko yu doon wër ci réew mi dana tumuranke liggéey boobu nag moom la sëñ Abdoul di gën a wéyal ci la nekk kon bala noo sori sëñ Fallou danuy dañuy ànd ak yow ñu dugg ci biir daara ji Mbay Siise di ñaan yàlla suñ borom fa mu nekk suñ borom defal ko fa ay tawféex ak i ngëneel yokk ay maqaamam ci barke borom Touba di ñaanal sëñ Laat Siise mii nga xam ne moo ko fi nekkal toogal ko fi xalifa suñ borom yàggal ko te kàttanal ko te ñu fas yéene àndal liggéey bi nga xam ne moom la sumbal maamam ja sëriñ Njaase Siise sumbal ko waajuram wa sëriñ Mor Mbay Siise lépp mu teg ko ci euh, sunna jaamu yàlla ak sunnas muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam lépp ci ndigalu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul ci ndigalu mun Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi toogal Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul kon dañuy jël kàddu gi rek fas yéene nuyu mbooloo mi nga xam ne ñoom lañ fekk ci jataay bi di leen siyaare di leen bége yéen ñëpp nga xam ne suñ limee rek day gudd waaye dañoo bëgg a wax li nga xam ne moo ñu fi dajale tey nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Laat Cissé sumbal Serigne Mor Mbaye Cissé ci kër gi nga xam ne daara ji képp ku ko xam xam ne daara ji daaray cosaan la ndax mu nga sox ko ci sëñ suñu maam sëñ Jaasi Cissé ñoo ba ci sëñ moor mbay Cissé sëñ Laat tey euh, bëgg a yëkkatiwaat liggéey bi teg ko fa nga xam ne fa la ko maamam ju baax ja tege woon teg ko fa nga xam ne fa la ko way juróom bu baax ja tege woon kon ñu ngi soññ ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi muy ci waa dëkk bi ak waa Europe ak ñëpp képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu rek nga xam ne liggéey bi liggéeyal yàlla la liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéeyal yonent yonent liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul la te kat képp koo xam ne nee nga ab murit nga te danga xam ne da ngaa gëm sëñ Touba te da bëgg sañ tubaa li nga xam ne moom la sañ tubaa bëggoon doon ko nangul boppam muy arxuraan képp koo xam ne yaa ngi jëf war ngaa jëf jëme ci moom ndax kat doomu aadama amut lu dul jëf ju baax te jëf ju baax ji fi mu gën a yelle li nga xam ne moom nga ne moom nga gëm nga xam ne boo amee am tudd da nga naan xaar ma wooy waa arxuraan ngay wàcce kaamil nga ne xaar ma wooy waa arxuraan nga xam ne da nga am ku fi wàññeeku nga ne xaar ma jëli waa arxuraan kon bu arxuraan soxlaa képp ku ne da war a bàyyi sa yitte def ci ngir jëmmi yàlla ndax kenn ku ci ne sa bopp rek ngay defal waaw te ñu Abdou Lahad Mbacke da doon wax ne néew bi nga xam ne tur tëral nañ ko ci kuusu bàmmeel koo ko yaakaarloo ku dul sëñ Tuubaa nga sa bopp kon nag sëñ Laat Siise bu wootee fii wàcc na waaw bu wootee ngir ñu jëmmal daara ji taxawoo ko ni ñu ko war a taxawee kon ñun mbokki taalib yëpp dañoo waral laxasu boole lu ñu am ak lu ñu mënu def ko ngir jëmmi yàlla ndax kat àdduna yàggut lu fi waay bàyyi yàgg-yàgg da nga ko fi bàyyi ginnaaw rek te xamoo nu muy demee te kun kuy jëf gaawal jëfal alxuraan kon sëñ laat suñu kàddu dañ ko jël di ko soññe waa njaareem gépp képp ko xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu te jaaroon ci daara ji wala nga déggoon borom daara ji man de wallaahi jaaruma sax ci daara ji jànge fi waaye damaa sopp borom daara ji sopp sëriñ laat siise te it dara ñoruma lu dul liggéeyal yàlla moo tax sama li muy xam ne moom laay liggéey muy bari mu néew dama koy bokk ak waa alxuraan muy fu mu mën a doon ci daaree njaareem yëpp kenn ku ci nekk dinaa jëflante ak yow jëflante bi nga xam ne moom laa waral ngir alxuraan ah ñoo ngi siyaare kon suñ mboolem mbokki taali bi nga xam ne ah, ñoom lañ teewandool fii ci jataay bi ci bis bu tedd bii di ñaan suñ borom tabaaraka wa taala lépp loo xam ne liggéeyal nañ ko fi alxuraanu karim ah suñu borom nangul nu ko di jiital siyaar bi suñu sang bii di sëriñ Abdoulaye Cissé ah, yàlla guddal aw fanam wéral aw yaramam ci barkeb alquranu karim waaw daanaka su yeboo sax ne wax jëpp mat na ndax li ci amoon solo ak li ñu ci bëggoon wax lépp suñu yeboon ne sëñ Mor Ngiraan ak sawaay mi wax nañ lépp kon nag li ci mënta ñàkk rek mooy maanaam euh, euh, soññewaat ci même kàddu yi nga xam ne moom la mm, gaa yëpp di soññee muy ñu jéem a dolliwaat suñu pësteef ci liggéeyal alquran ndax alquran dong mooy li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa doon yëngu te wax dëgg yàlla ñun ñëpp xam nañ ne euh, daara sëñ Mor Mbay Si ji Ah, ñi ngi ko sanc ci ndigalul Serigne Touba ci eh, jaare ko ci maam Dia Cissé ba mu agsi ci Serigne Mor Mbaye Cissé ah Serigne Bassirou ba teewaat ci loxoy Serigne eh, Abdoulaat Cissé mii waaw kon nag ñu ngi ciy doolee soñaat suñu bopp bu baax a baax di soñaat mboolem mbokki taalibe yi ah rawatina suñu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ nekkal fële ca Touba Mexico ñu leen di doolee soñ bu baax a baax a baax ci liggéeyu alquran ji waaw daanaka dëgg-dëgg wax ji suñu yeboon ne mat na ñaan suñu borom tabaraka wa taala lépp loo xam ne doomu adama jaayante na ko ci ci alquran ji suñu borom tabaraka wa taalaa nangul ñu ko ci darajey xaadim rasulullahi ci darajey alquranu karim jërë ngeen jëf ñu ngi siyaare mboolem mbokki taalib yëpp asan wax nag maa ngi koy tam maa koy dooree ci turandoo suñu Mor Mbaye Seye yi nga xam ne euh, yàlla dogal na man maay trésorier bi xanaa di wax ne ñu fas yéene fonkaat liggéey bu baax baax daanaka li fi yi wax rek mën na sëkk waaw xanaa dañuy soññeewaat rek waaw ñu gën a bàyyi xel liggéey bu baax a baax gën cee lu baax waaw man nag euh, maa ngi lancé waale benn appel boo xam te ne si turandoo yi dañ ko nasoon maam lu jëm ci kees goo xam ne kees sociale la jëm ci waa jëm ci ñi nga xam ne ñoo jàng alxuraan ci daara ji ngir taxawu leen ci wàllu seen santé ak li nga xamante ne si tamit lu jëm ci lépp loo xamante ne si dong dañ ko yittewoo rek lu jëm ci wàllu courant ak ndox rek lépp rek turandoo yi dañ ko fas yéenee gàddu kees social bi mi ngi mi ngi fii ci biir daara ji ci néeg suñu mor mbéy bi ma ànd koog Serigne Mor Ngiraan ak sëriñ Mor laam ak turandoo yëpp rek damay bañ kees gi nag ñu ngi ci biir tàmbali nan ko eh, ni ki barki dem ba yàlla dogal na <coughs> tam tàmbali nañ dox ay jéego turandoo yëpp daal dañoo jaayante woon kenn ku ne sax sax weeru dee wu ne junni nga ñëw tàbbal ko ci kees gi mu jëm ci wàllu donga yi nga xam ne dañuy jàng ci daar ji seen wàllu wér yaram ak lu jëm ci wàllu courant daara ji ak ndox mi yëpp ñu fas yéene ko gàddu noppal ci sëñ Abdou Lahad Cissé waaw ñu ngi ci woo tamit ñëpp koo xam képp koo xam ne sii tamit alxuraan ñor na it ñu ngi la ci woo lépp lu ci waaye am rek chaque weer rek soo ko soo indee ci daara ji baa nga jokkoo ak ñu ci war a jokkool ko man ni sëñ Mor ngi daan wala man mii la ko tàbbal ci kees gi kon daal ñu ngi wàcc foofu suñuy kàddu rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp nuyoo bi nag ñu war koo tàmbalee ci suñ kilifa gu mag gi muy xalifa général des mourides Cheikh Mamadou Mountakha moom Cheikh Mamadou Bassir nga xam ne mi ngi ci kër gi di ko ñaanal yàlla bàyyi ko bi ak rakam yëpp di ñaanal xalifa yi ne ci réew mi yëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéeyal diine ak lislaam waaw di ñaanal tam waa réew mi ñëpp ah, di ci mboole tam ki yàlla dénk réew mi ah, ak ñi màndal ñëpp ak opposition bi yëpp ah, ak ak mboolem ñi dëkk Sénégal rek ni ma ko waxee woon turandoo yi sëñ Mor yi ñoom ñooy ñi nga xam ne liggéey bi ëpp solo ci kër gi lépp am solo waaye ñoo ko yore ndax lu diis lu gën a diis lu ne ci seen loxo laa koy teg màggal gi bu ñëwee te dama leen li ci gën a jafe lépp ngeen góorgóorlu def ko mooy tànt bi tribune bi kafe gi suukar si waaw suñ ne ba nga xamante ni bernde yi mën ngeen ko di man ma lu bàyyeeg lépp seen loxo waaw sëñ Pape ñu ngi lay nuyu waaw nga xam ne yow danoo bokkee Cheikh Abdou Lahad di nuyu sëñ Ousseynou Soxna mi nga xam ne moom itam ah taxawaayam ci kër sëñ Abdou kenn wérante wu ko waaw moom mën naa ne moom moo fi représentant sëriñ Sidi Mbacke fii waaw ndax lu ko yàlla jox la da koo da koo kiiwul nag itti waaye moom la di nuyu sëñ Mamadou Diop mi nga xam ne tam taalibi sëñ Bas la tuddi na ko doom di wóllëreem waaw di nuyu ñépp rek liggéey moom li nga ko waxee daal buñ jógee fii sëñ Mor na leen ko wan wax dëgg yàlla daanaka àgg na te matul juróom-ñaari weer fi mu nekk karo ak laso moo ci des su noppee itam dañuy xalaat teg ay néeg waaw ndax kaw gi itam bëgg nañ jigéen euh, boo xam ne jigéen ñi fa la ñuy ne nga xam ne duñ jotee góor ñi dara waaw appartement boo xam ne jigéen ñi kese fay ne ñu wut ay jigéen ñi fay jàngale ak yeneen néeg yoo xam ne mag yi daal yi den fa mën a ne comme ni ko sëñ mbay jaañ mi waxee itam liggéey moom génnewuñ ci kenn liggéeyu yàlla la li yàlla naa waanal masaajida lillaahi fii loolu la waaw kon daara moom yàllaa ko moom waaw képp ko xam ne bëgg ngaa lebal yàlla rek mën nga cee def waaw ni ko sëñ Mountakha doon waxee rek moom daal ku dem mu dem ku demul mu dem waaw pas-pas bi rek moom solo boo fas fas yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo lay moo lay dimbali te sëñ Tuubaa mooy alxuraan waaw mooy lépp lu baax rek waaw kon nag ñin ko bokkal ñëpp daal waxoon naa ko ne ko bu nu màggalee ba noppi dana tàmbaliwaat teg ci kaw waxoon naa ko sëñ Mor bi moom mii laa njëkk a sa sax dama ne ko yow ñaar fi junni laal la sase boo mënee lu këpp nag yaa xam ndax bee teg wax na ci waaye ñaar fi daal mënta ñàkk sas sëñ Mor Solam mi waaw ma ne ko yéen moom dañ leen di sas ndax li ma bëgg ngeen bëgg waaw kon nag moom du leen yërëm daal jëru ko waaw ñu ngi nuyu jëwriñu kër gi mooy sëñ ngi daan di waajuram di ko ñaanal yàlla bàyyi ko bi ah gis nañ taxawaayam ci kër gi ndax bi sëñ moo nee itam léppam da koo jox jàppale ko saahir ak baatin biñ gisalu moo Mor mu def noonu sëriñ Bas biñ ko gisee mu def ma noonu kon loolu xam nga dëggal la ak ak wéral yàlla na ko yàlla may wér yokku ko ah, bàyyi ko sunu kanam lu di nuyu Cheikh Mouhamadou Moustapha Guèye mi nga xam ne moom itam mooy jëwriñu daara ji ndax sëñ Mor daana wax ne bu ma dee gouverneur bi ñoom mooy mooy adjoint bi moog sëñ Malick Diam di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi di nuyu borom daa sëñ Mbaye Souleye Guèye ñi xam ne moo yore daara kaamil yore kàddu sëñ Fallou ah di suñ wóllëre ci ñëw na fi lu xew day ñëw ma ne ko ah, man de maa waroon di ñëw mu ne ma man damay ñëw ngir sëñ Mor rek waa ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi di nuyu sëñ di Abdou Diang sëriñ Basirou Diang sëñ Omar Sylla waaw di nuyu waa sëñ Bas ñi sëñ Cheikh mi nga xam ne moo ne ca bopp ba aw ci sëñ Mor aw ci sëñ Mali ak Cheikh Cheikhouna ak Cheikh Tidiane waaw di nuyu waa kër yi jigéen ñi yëpp ndey mi nga xam ne moom moo yoroon ah, xale yu jigéen yi moo fi doon jàngale loolu moom sax lañ fi bëgg indiwaat comme sëñ Mor da ko waaw soxna Ndey Diop Cissé comme moom sëñ Mor da ko digaloon loolu te def na ko fi lu man ñaar fukki at wala fanweeraat moo tax bi ngeen xalaatee ne ah loolee de wëruñu koo dagg nan ko fi indi wut ñu koy jàppalewaat dañ ko fi wutal tamit ay barab mu continuer ca loolee ndax mënta def lu gën loolu la ko gën a di nuyu ay rakkam ami Cheikh soxna ami Cissé soxna Penda ñun bokkal sëriñ Mor yëpp waaw nan yokk ñaan daal ci réew mi jàmm te loolu rek a fi am nag ndax loolu la sëñ Tuubaa foogal keroog maa ngi wax naa juróom benn yooyu sëñ bi wax ci mat la ba sifa na ko ñëpp di ñaan waaw wa an si nafa makaana lori lor moom bari na wa ansil xayra makaana sari waaw musibatim bari na mooy balaa bii waaw wa ansil jóoda makaanal buxli milliardaires yi bari na waaye nag jaayante bi nangootul ko waaw ñi yàlla dénk yàlla na leen yàlla xëy ñu génnee leen yor def ko ci yoonu yàlla waaw wa ansil xinaa makaanal faqri waaw wa ansil sukra makaanal kufri ñuy sant waaw waaw was si jameel ma si bi naa suma xim xom naa jaar ñu ngi ñaan daal mucc ak yokk waaw kenn ku ne daal la yàlla dénk yàlla nga ci am ndam waaw ñun daal daara ji leenu yàlla dénk ñu ànd kook yéen yàlla na ci sëñ Tuubaa gën a jàppale ak sëriñ Moor ah sëriñ ah, Muntaxa mi nga xam ne tamit yoon wi la ko yàlla dénk yàlla na ci gën a am ndam ndax yàgg naa amee ndam ak i rakkam université bi yàlla na àgg ci jàmm ak salaam ah, tëli yim nisar ak lamp yi nga xam ne lépp état bi ko ci war a mën a dimbali yàlla na ko ci ñëpp jàppale ba ko war a def def ko ndax day am loo xam ne état ko man kenn mënu ko waaw ak dispensaires yi fajukaay yu doy sëkk ak i liggéeyukaay sax Touba waroon naa dem ba dëkk yu ko wër yëpp muy Ndindeeg Daaru Rahman ba ci Touba Belel foofu am ay usine waa Touba di ci yëngu te war naa mën a nekk waaw. noonu ñu ko waxee rek ñu ngi ñaan ñëpp jàmm daal ndax réew mi daal jàmm rek moo fi mat a ñaan ndax lu ci mën a ñëw tim ñoo koy bokk waaw ku fi ne ah yàlla na la yàlla xiir nga roy ñin ñu baax ñi gën a roy ñu baax ñi rek ak déglu leen sëñ Fall la defoon waajur ak sëñ Babacar si luñ ko digal mu def ko waaw yaakaar nee na fi jàmm ba jógee ak sëñ Mor mii tim defoon na ko waajur bi mu fiy jógee tim loolu la ko dénk la ko dénk ne ko te loolu tim Abdou Diouf doxal na ko nee na ba ci jàmm ak salaam xamal ne ko de ñii fi yàlla teg mu nit yi diine yii bu leen réer ak ñoom waaw ndax li ngeen soxla yor soxlawuñ dara waaw soxla wuñ ci dara dañ leen koy defaral rek ñoom li nu soxla mooy ndono yi ñu leen bàyyeel mooy lislaam ji rek Abdou Diouf tamit doxal na loolu ba jóge fi Abdoulaye Wade tamit yaakaar naa réerul di mu ñëwee dem sëñ Saliou la def kilifa ndax sëñ Abdou Khadre la jébaloon waaye sëñ bi mu dajee sëñ Saliou da koo jox boppam yaakaar naa gis na ca njariñ ndax mu euh, lu mu daal lijjanti day day gaaw yomb lool waaw milliards yi bari woon na ci réew mi procès milliards yi daanaka yëpp àgg kii fi ne tamit ah wax dëgg yàlla mi ngi yaakaar sëñ bi di ko jokkoo ak moom bay mu gën a jàppante moom ak kilifa yi ci réew mi rek yëpp rek waaye tiijaan yeeg laayeen yeeg yëpp ndax ñoom itam li mu yor soxlawuñ ca dara ñoom seen doono rek lan soxla yàlla gën koo jàppale gën koo booleeg euh, askan wi mu gën a taxaw askan wi waaw waaw jërë ngeen jëf sama xol sedd na jërë ngeen jëf yàlla na ko fekkee déwén yàlla mi ko yor yàlla na ko may waaw barke borom Tuubaa kon ñaan ñaan sëñ Moor Ka yàlla na noo am yàlla na nu mucc yàlla na nu wér yàlla na nu dimbali jégal nu jagal yàlla na may loolu jeex mukk te jëriñoo ko te am ci kër àjjana te bañ caagaawaa dem te ñu mën sol na ci ndog ak ndab te may nu jàmm ko bokkee ku nu ko yéneenteel ni ko suñ moo doon wax itam daana wax ne wërsëgu tubaab yeeg naar yàlla na ko suñu kaw te ànd jàmm booba yaakaar ñu bari xamagu demaguñu sax hmm. waaw xam na ne kon tubaab yi mënuñu fee jógee hmm. bay boo rek yi maslaa ñoom hmm. comme suñ Mor lu masaa wax tudd leen ci sëñ Tuubaa dem tudd leen fu bare istib xulooba nasaara ah, yaa xadir ila nasri warul kon xam ne adduna ñoom la ko yàlla dénk waaw kon moom nañ leen di ñaanal jàmm di maslaa ak ñoom Afrique yi ko koo président yi ku ku ku fi kii neexul njëlee la waaw ndax doole ji leen yàlla may la colonisation bi ni colonisé woon la yàlla na yàlla xiir daal réew yu mag yi yëpp li ñu am ñu wax ko dugal ko ci suñu Afrique yi daal nga xam ne doole waaw jox ko président yi ñu dugal ko si ñun waaw ndax ñoom li ñu am li fii la jógee kon nag yàlla nañ ko dellawaat ci ñun daal waaw ci barke borom Tuuba baax na waaw mi yi Euh, sëñ Mor daf ko daan def bisu Ashura ne kuñ ci bind turam rek mu mu fekkee déwén xam naa sëñ bi bindal ma sëñ bindal ma sëriñ Aliou Thioune waaw bindal sëriñ Aliou Thioune sëriñ Ibrahima Guèye sëñ Fallou Gala Silla te bind waa Lamp Fall euh, mbind mi sëñ Mor moo ko daan def xul huwa ñuy bind ba agsi ci xul huwa allahu ahad allahu samadu saatu samadu gi la ñuy yaatal ci biir samadu googu la ko daan dugal sëñ Mor nag moo ko daan def bis bii waaye loola nag ca moom la nekkoon mun kum ca mas a dugal nag nga fekke déwén waaye nag daf daan dem ba mu yàgg bi nit ñi baree ba bari léeg-léeg day téye ci loxol kenn ci donga yi lu yàgg ne ko xaaral ma maas la ci courant bi bu ko téyee lu yàgg bàyyi ko ne la yow it mën ngaa dem di bind du caagi nag ni boo ci amul ndigal fi mu ne boo ko bindee ma naa bañ a jariñ dara waaye ku mës a tëye tuuti ba ne la ma maas la ci courant bi bu la bàyyee ne la demal bind yow koo bind mu fekke déwén loolu moo indi mbind mii ngay gis ñu koy def tey kon nag tey membre Lamp Fall ñëpp nañ leen dugal ci biir <laughs> waa Lamp Fall sax laa koy wax mu defaale ko ci rek euh, ndax yéen moom ñoo nag yéen a seq liggéey bi kon loolu mooy cosaanul mbind mi ñuy def euh, sëy blaat mii nag di di xalifu sëñ Mor moo jox ndigal ñii ci biir ñuy bind kon courant boobu la leen maas rek muy donge yi jox leen ndigal ñu di ko jàllale kon kon loolu mooy mbind mi jërëjëf kon liggéey bi ñu doon wax muy mbaar mii nga xam ne moom fii lañuy daan wooye mbaar mu mag mi nga xam ne donga yi jaaroon ci daara ji moom xam nañ mbaar mu mag mi mbaarum sëñ Mor Mbaye Semi kon mbaar mi mi ngi nii moom la sëñ Blaat di liggéey di ko yeesal gis ngeen liggéey bi fi mu toll sori na euh, mi ngi ko tàmbali woon euh, ci bi ñuy door a dugg ci at mi rek daanaka fi mu nekk liggéey bi xam naa ci ay juróom-ñaari weer juróom-ñetti weer lay toll waaye taxawaay boo ama am solo yàlla dogal na boobaak léegi taxawut euh, liggéey bi nag mbaar mi nag yaatoo na 25 sur 17 415 mètres la def nañ ci ay wanak ni ngeen ko gisee ñeen mu doon ñeent def nañ ci jàppukaay néeg yi nag bariwut yim ci def ndax dañ ko waajal jàngale rek ci kaw la programme néeg yi moo tax def na fi ñetti néeg euh, yoo xam ne benn bi ànd na ak salle de bi ci des muy ñaari néeg yi ci des di néegi jëwriñi daara yi euh, ci kaw nag lañu waajal fi nga xam ne fi la incha allah bu buñ buñ yëkkatee fas yéene nañ fee def foo xam ne jàngukaay yu jigéen ñi la comme ni mu ko waxe woon Euh, soxna Ndey Jóob mi nga xam ne doomi sëñ Mor Mbay Se la sëñ Mor daan ko jox xale yu jigéen yi ñu fay indi mu leen di jàngal lool moom it moom la bëgg wet googu it mu wéyale liggéey boobu di fi jàngale waaye njàngale mépp itam dañ koy jàngale fii sabilillahi rek ni ki daara ji jàngam ne cosaan gi mu doonoon rek jàngale ngir yàlla du laaj kenn benn dërëm duñ fi fayeeku kenn dara itam euh, kon liggéey bi noonu noonu la demee euh, liggéey bi nag moom du loo xam ne kenn financé nañu euh, sëñ bi kenn financé wu ko ci liggéey bi euh, xanaa sëñtuwaa mi nga xam ne moo joxe woon ndigal li sëñ Touba daal la ko financé ak taalibe yi sëñ yi te buñ ne sëñ mooy taalibe yi euh, maanaam ku mel ne ñu ñi nga xamante ni ñu ci ràññeeku lañ di ay sëriñi daarañ nekk fi di ay kilifa ku mel ne sëñ Moussa Mor dem nga xam ne fi la newoon sëñ Blaat yoroon na ko di ko jàngal muy sëtu sëñ ma dem euh, ku taxawu ci liggéey bi la taxawaay bu rafet euh, naka noonu it bokk yi nga xam ne ñi ngi ci àll bi it nekk étaleeg waa Mexico yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi ciy taxaw taxawaay bu rafet rafet liggéey bi it sëñ bi mu koy tàmbali it du caagee nag ne dafa daf dafa jekke-jekki rek engagé ko di ko liggéey da ci am ay kilifaam bi mu jógee rek dafa euh, bi mu ko xalaatee rek dafa dem ba ci sëriñ Sidi mi nga xam ne mooy buntam ci sëñ Tuubaa waxtaan ceeg sëñ Sidi sëñ Sidi jox ko ci ndigal ñaan ci xamal ko ne ko liggéey bi dana àgg mu mu xam ne it ki mu fi nekkal muy sëñ moo it sëñ ci dafa bokk ci jëwriñu sëriñ yi muy liggéeyloo ci alxuraan te kon sëñ Muntaxaa moo fi sëñ Tuubaa mu ànd ak mbooloo mën mii ca laa bokkoon sëñ Mbay Ngiraan mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi ca la bokkoon. ak yeneeni kilifa mu ànd ñoom dem ba àgg ci sëñ Muntaxa yëgal ko liggéey bi sëñ Muntaxa ñaan ci jamono yii rek sëñ Xaadim Gumba la ci Italie noo ngi koy sant en passage bu baax di ko gërëm ci taxawaayam bu rafet ci liggéey bi bi mu demee di waxtaan ak sëñ bi bay agsi ci kër gi sëñ Muntaxa dane ko mbaar mii de lépp lu nu ci def sëñ Muntaxa dane ko mbaar mii de lépp loo xam ne nit def na ko ci yoonu murit wépp lislaam jëpp nga ko defal yoonu murit wépp nga ko defal sëñ mu Muntaxa lool la wax bi mu koy wax ne ko nag donga yi ñi man benn tonne ña ngi koy def ñi man ñaari tonne ña ngi koy def ña mën a jënd ay karo ña ngi koy jënd ñi mën a indi ay làmp lu ne daal nit ñaa ngi koy def malgré ni jamono xate ak nii tawat ji mel tëj àdduna teewut liggéey ba taxawut ña nga cay dem donte ñu bari yëgunu ko it donga yaa ngay walanteeru di ko def leen sëñ Muntaxa ci làmmiñam dane ko waaw leen góor waaw leen góor waaw leen góor ne foofa de lu fa waay def na la wóor ne yoonu murit wépp nga ko defal ndax sëñ Muntaxa wax naa leen ne leen fii ci biir fii la dale alxuraan doon ko fi jànge kon moom jaxasoog sëñ sëñ moor waaw lool sëñ Muntaxa jóge na fii keroog bi eh, maam Basiiru Caam wàcce ab liggéey eh, sëñ mun taxaa ñëw ca sarax sa keroog sëñ Ndonga bàyyi la àndal baax sëriñ bokk ci mag yi mag yi taw sëñ Muntaxa sëñ ndonga nee na bi ñu ñëw bay dugg si maag sëñ muntaxaa nee sëñ muntaxaay ba muy dugg seen sëñ moor daa summi mbaxanaam bokk ko nii ci poqtaanam nee sëñ moor bi sëñ muntaxaa jëm jëm see ci moom sëñ moor dane bërét jóg taxaw dafa ko yoroon doon ko jàngal waaye dafa xam moom lu mu doon jóg taxaw dal di daal di faste ay loxoom korosé ko moom sëñ moor ne ko du ma saafoonte yow du ma la jox loxo de li feeg soloo sa mbaxana moomu ba noppi sëñ mu daa ne ko lu tax sëñ Mor ne ko solal sa mbaxana mii ba gis doomi sëriñ Touba wala sëtam bu la mag yow ba noppi te gën laa ragal yàlla ndeem am na <laughs> waaw sëñ Mor ne am na <laughs> waaw nga xam ne euh, kon moo tax sëñ Muntaxa moom dafa bàyyi xel liggéey bi bàyyi xel daara ji loolu moo taxoon sëñ Xaadim Gumbala mi ngi topp jataay bi mi nuy gis moom ci boppam sëñ bi nee na ko ne nee na ko lu ngeen def ci liggéey bi yoon wépp ngeen ko defal naka noonu mën mii ànd naak sëñ Jaasi Juum mii ñu ñu yóbbu daayira Mexico bi ci sëñ bi ci jamono fan yi jamono yi jàll ci gannaaw rek ma koy jottali nuyoo daara ji ak ñaani sëñ bi sëñ Muntaxa dane ma ëpp ma yaakaar benn barab ci barab boobu ci barab bii nee na ëppul yaakaar benn barab ci barab bii kon nag ndokk kon liggéey bi mi ngi nii nañ xam ne kon kenn ku nu financé amul ku ñu wax ne ñi ngi financé daari sëñ Mor ngir mu fay liggéey moo xam nitu gouvernement la wala nitu la neen amut mboolem nag ñi fi ñi bëgg lu baax ñépp ñi ngi ciy jaar ñi ngi ciy jàpp ñi ngi koy ànd ak noonu naka noonu itam noo ngi sant waa bitim réew bu baax a baax a baax naka noonu it liggéey bi mi ngi fi des na àggagut am na yeneen yu ci des bu noppee itam war na noo yëkkati ci kaw kon sëriñ bi mu ngi ko yëgalaat ñépp di wax ne liggéeyub lislaam la liggéeyub alxuraan la kon nag sëriñ baa ngi koy yëgal ñépp sëriñ Tuubaa daa wax ne wa xiila in xadara yowmul baari wa duriba shiraat fawqa naari wa kaabadal waral jawwa wal xumma naada munaadin ayna ahlul xidma lil muslimiina fa ajaabu ajmain fa yuumaruuna ilal jinaani musrahin sëñ Tuubaa dafa wax ne bu ëllëgee bis pénc ba ñu jël siraat teg ko ci kaw jahannama nit ñi jànkonteeg ay njàqare jànkonteeg ay coono dana am ku annoncé ca kaw ne ay na ahlul xidma ana ñi doon liggéey xidma nag moo tax sëñ mun naan liggéey bi ëllëg la jëm du xidma mooy loo xam ne bi nga koy def yaakaaroo ci bénéfice léegi du looy jaay di jàkk naan nangam laa ciy am waaye bi nga koy def xam nga ne da nga ci bénéfice wu fa bénéfice amee njariñ moo tax nee na day am ku annoncé ne ay na ahlul xidma ana ñi doon liggéeyal lil muslimin ñi doon liggéeyal jullit ñi bu boobaa ñu wuyu fa ajaaboo aj mahin ñoom ñooñu ñooy mën a wuyu fa yoomaroona ilal jidaani musriin ñu ne leen gaaw leen dem àjjana yéen coono yi bis penc dana leen umb loola nag la koy maye mooy jàpp ci liggéey bu mel nii muy liggéey boo xam ne ci alxuraan la jëm ak yar ak defar nit ndax fii kër gi sëriñ bi ci boppam sëñ Ibrahima mi koy liggéey ay njabootam doonu wuñ ko alxuraana ko moom fanaanu ci dëkku ci waaye alxuraan la koy liggéeyal ak saxal sampub sëriñ Tuubaa boobu muy ndigal lim joxoon maamam mu wéyale ndigal loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu bu baax eh, di leen siyaara te di leen jaajëfal ci seen coono yi ak taxawaay bu rëy bu rafet bi nga xam ne yéen a ngi ci boobu ba tey di siyaare sëriñ Abdou Lahad Cissé mi toog jotaayu sëñ Mor Mbaye Cissé ñu ñaan sunu boroom bàyyil nu ko fi lu yàgg lool yaram yaramu wér lool ak mboolem njaboot gi gépp ak njaboot ko sëñ Mor Mbaye Cissé gépp siyaare boobu mu yóbbul nu ko ci sayxu suyooxi sëriñ sëriñ si di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xam ne yàlla dogal na tey mi ngi fii ci njaarim ci dëkk boo xam ne moo ko moom ndax njaareem moom bu melee nii rek sëñ Basiroo nii mu mel bu ñu neeree rek sëñ Basiroo kon nag bu fi nekkee mooy mooy boroom njaareem waaye mooy borom Touba waaye mooy boroom Poroxaan itam loolu nag xam naa ci moom la ko sun boroom dogal xalifa boo xam ne yaa yilif ñetti barab yii di ñetti wos Touba ak njaareem ak Poroxaan yàlla na ko fi sun borom bàyyi di saare njabootuk Cheikh Ibrahima Fall gépp itam nag. jaare ko ci sëñ Moustapha Mbar mii jëwriñi sëñ Fallou Fall mii jëwriñu sëñ Cheikh Jëmb mii taxaw taxawaayu Cheikh Ibra tey ñu ñaan suñu boroom bàyyi ko fi di siyaare njabootuk Cheikh Ibra Fall gépp bàyyi wuñ kenn ni ko sëñ Mor waxe sëñ Issa Guèye mii dib sët ci Cheikh Mababou Guèye waaye bokk ci kër gi itam ñu koy siyaare bu baax mu jógee Ndengleer ñëw ba fii ngir jëmm yàlla ak bés bi noo koy ñaan fan ñaanal fan wu gudd waane ku wér suñu borom musal ko ci ndokk saahir rek baatin eggale ay yéeneem dolli kàttanam di saare njaboot gii fi teew gépp itam nag di leen jaajëfal ni ma ko waxee nag seen jëf ju rafet yi nga xam ne rek ñu ngi koy jëf waxtu wu ne rawatina ci daara ji turandoo yeeg dongo yeeg ñi nekkoon ci daara ji ba tey ñu génn daara ji nekk ci àll bi di liggéey ak ñi ci biir réew mi ñoo ngi siyaare ñëpp ñi ci biir réew mi ak ñu ci bitim réew ndax ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na yal na leen yàlla fay nun de ñaanal rek lenn ndax lépp lu waay jëf te jëf ko ci daara ji day que sëñ Mor si seen nun nga ko jëfal kon dañ caa lottu rek néew ca doole waaye lu ca waay jëf rek nun nga ko jëfal kon noo ngi sant ñëpp ñu ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew ñëpp nag laa maasale ndax mënumaa tudd ay tur ñëpp rek ñu ngi sant ñëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi yal na yàlla eggale yéene yi ci saayir ak ci baatin di am mbégte nag lool ci bisu tey bii itam di yow ma sora di bis bu rëy ci diine lislaam di bis bu tedd di bis boo xam ne benn bis féetewu ko kaw ci saayir ak ci baatin di bis boo xam ne benn bis mënu koo féete kow ci saayir ak ci baatin waaye ni ma ko waxee woon ci suba bi ñu julli fii ba noppi rek bis bu bésab diine lislaam jëpp la waaye nag nun waa njaarim noo ci raw njaarim dama ne bis bi bésab jullit yëpp la bisab murit yëpp la waaye nag murit yi dëkk njaarim ñoo ci raw ngir lan weer wi ci la sëñ Tuubaa ñëwoon njaarim keroog ba muy jóge jolof di bésab gaaw ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tam xarit dëppook fukki fan ak ñett ci weeru janvier 1912 la sëñ Touba xëyee Jolof ñu di ko indi njaareem mu jógee ci yenn Jolof mu xëyee fa yand fu ñuy wax bel ki faran si lumbel kër fari kewe xëyee fa dibeer ji yand su kaddu balloo ji gonte fa jullee tim si diggante daarul manaan ak Touba faran si daaru alimil xabir muy ndaam kër sëñ ndaam Abdourahmane bàyyi fa lu bari ci njaboot gi moo tax ñu bari fa lañ feeñee jamono julli fa suba xëyee fa yandu si ndulo kër Modou Sow Seex ba ña nga fay tabax jumaa julee fa tisbaar ak tàkkusaan gonte fa fanaan si njaareem altine cet cinq heures et demi di guddik talaata la agsi fii di fukki fan ak ñaar fukki fan ak juróom ci ci ci ci ci ci ci ci tamxarit dëppoog lesasin bi gàddaay gi amee junniy at ak ñett téeméer ak fanweer waaye di fukki fan ak juróom ci janvier 1912 ñu indi ko njaareem yóbbu ko fee ca kër commandant ba ndax résidence surveillée lañ ko fi doon def ndax xam ngeen ne sëriñ bi labbe bu bari xam-xam bu ñuy wax Antoine Marie di labbe bu bari xam-xam dëkk Lyon ca France moo ne woon sëñ Touba nañ ko yóbbu ci dëkkab taax waaye buñ ko bàyyi muy topp àll yi di doj di toj àll yi di gor di terbi ay taalibeem day mujj ni mu tëxee ni la ay taalibeem di tëxee kon nañ ko yóbbu ci dëkkab taax marché am fa ñuy jaay ko jënd góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo di am ay bàkkaar leer yi muy def ci ñoom di wàññi ko loolu mooy sababas ñoom ñu indi sëñ Tuubaa njaarim ndax nee na leen sëñ bi man mënuma ci moom dara te topp naa ko ba juróom benn asamaan sama xam-xam may na ma moom ma ngay wéy xaw ma fu mu yem topp naa ko ci suuf ba juróom benni suuf fala sama xam-xam mën a yem ma ngay wéy xaw ma fu mu ci kaw xaw ma fu mu yem ci suuf su ngeen ko bàyyee nag day mujj ni mu tëxee ni lay taalibeem di tëxee ndax gis ngeen suñ dee waxtaan ci moom wala ñuy jàng ay mbind muy xasida yi mu def ba leer yi dikkal leen danañ def loo xam ne nit ku ko mës a def da ngay faatu te ñoom bu ñu ko defee du leen wàññi dara ndax xam ngeen ne booba murid yi àgg nañ ci waxtaan ci sëñ Tuubaa ba mu yàgg daw dugg ci àll bi dajaleb séebu lakk taal séebu bi dugg ci biir séebu ba toog séebu bi tàkk nga ci biir sawara bi day tàkk ba jeex séri yi nga sol sax dara du ci lakk waxuma saw yaram booba murid yi àgg nañ foofu di naan nangami barigo cim ndox di naan ndox muy bax taxaw cib taal baxal am ndox di ko fa jël di sotti ci saw yaram di ko sangoo di tëbb dibb sawara këriñ lu xonq coy yu nga tibb ko di ko seex di ko sàqami di buusu lépp mag ñi dañ ko def jaar ci siiñam sàkket di ca daw nu la neexee yéeg ci garab gën a gaaw ab sandax ba ca kaw nga juutal sa bopp daanu ci suuf jóg fa xasu mu leneen yii yëpp dañ koy def du leen wàññi dara te leer yi muy jóge ci ñoom moo ko waral kon leer yooyu nañ fexe mu giim su ko defee moom rekk mu të waaye ñoom ñi ci des ñu mën ci ñoom dara ñoom loolu moo tax ñu indi sëñ bi njaarim ñoom def ko résidence surveillée ne nañ ko fi def mu doon benn barab boo xay du fa ti mukk duñ ko yóbbu fenn moo tax nangu naa ci bàyyi Balla Bousso sëñ Balla Bousso toog naa fii muy waxtaan ak nun ci njaareem ma dem fa mu ne ma am na bis boo xam ne sëñ Tuubaa da leen a yónni am njaal ca Saalum ca Bambu Musa kër sëñ Musa Paate Dramé maa mi sëñ Fàllu Dramé mii sëñ Musa Paate Dramé ne mu yónni leen fa am njaal ne bañ demee ba Kawlax moom ñi mu àndal fa lañ leen wàññee ne leen muridisme du génn ba wala yéen ngeen di ñëw ba Saalum wàññi leen ci seen tànk te ne fii lañ bàyyi sëñ Tuubaa ci biir kër gi mu ñaanal leen waaye ba tey dañ leen a wàññi ne leen ma du génn bawal yéen ngeen di ñëw ba njaareem ba ba ba ba ba Saalum wàññiku leen noonu la leen tubaab yi wàññee waaye ma ne leen lañ doon bañ am na muridisme dugg na avion sama jarbaata ngi di def sama doom ma nga ca Mexico la mis mis mix Mexico waaw <laughs> Mexico la nekk dañ fay màggal màggal Touba di fa màggal màggal yi am yëpp senegal ma ne leen sëñ Touba dugg na avion moom dañ ko doon bañ dong mu génn Bawal dem Saalum dugg na avion ma nga asi man mii dem naa Canada te ma ci gannaaw Amérique te taalibe fa nekk fa jëndoon kër suñ Touba woo ma fa ma dem fa boobu sëñ Siiri Muxtaar na yàlla dolli ay leeram mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy xalifab sëñ Touba bi mu demee ne sëñ mu Muntaxa mii toog keroog ba mu nuy ñaanal ndakaaru la nu ñaanale booba mi ngi toppatoo ujaaj yi ñuy aji yàlla na ñuy ñaanal ñu ñu ñu ñu ñu ñu passeport maag doomam ak doomi sëñ Bas sëñ Bas muñ daa wax sëñ Basiiru Mbàkke Bildin doomam mooy sëñ Abdul Asis eh, Majalis ku baax la ku ma taxaw la Mbàkke Mbàkke bu baax la ma koy ñaanal saa ne ndax kere bi ñuy ñibb si damaa sonn ci biir avion bi. xëy na xaw ma damaa fat xaw ma lan la waaye toog naa toog ci biir avion bi rek ak li ma dugg roplaan lépp waaye toog naa toog xamatuma guddi laa ne wala bëccëg gisatuma ba docteur bi ci avion bi ñu indi ko waaye mu di jullit moom sëñ Abdou Ciss moomu moo jël sama bopp teg ci kawam ñu wan ci toogu yi ma dendal yëpp wàcc ñu tëral ma ci toogu yi waaye diir bu néew rek yàlla dogal ma delluwaat ci jàmm kon ñoom loolu moo doon sababas ñu indi sëriñ bi waaye sëñ bi moom jant la li mag ñi daan léebu lépp sëñ Tuubaa lañ daan léebu xam nga mag ñi daan nañ léebu bu njëkk dar jant dar jant ñu ne du ko teree fenk jant bi di jóg nga jël sa loxo dar ko naan da ngay bañ mu fenk day fenk rek wala ñu ne suul ker waaye mag ñi bi ñuy wax yooyu yëpp dekk sëñ Tuubaa tax waaye xamuñu ko woon suul ker sab jële xale rëy rek waaye ker gi moom mënoo koo suul loolu lañ doon def waaye fekke na ñoom bi ñuy indi sëñ bi njaareem loolooy seen xalaat waaye fekk na sëñ Tuubaa moom li ko indi njaareem mooy bañ ko yóbbu gànnaar lañ jëkk a ñëw njaareem sëñ bi jëkkut a ñëw njaareem ci weer wii dafa jëkk a ñëw njaareem bañ ko yóbbu gànnaar ñu fanaanal ko fi moom la sëñ Moussa Ka di wax naan ñu fab ko tëj ko ci béréb société mbaaxaan di wax ne ba ko kenn seeti fi ñuy wax société ca lañ yóbbu sëñ Tuubaa tëj ko fa ci guddi googu la mbaaxaan rocci ko dem nag daaru mànnaan ngir bëggoon a duural sëriñ bi ngir bàyyi fa ay fetal ndax booba bagage yëpp a ngi daaru mànnaan ndax bi sëñ bi ñibbisee ci géej gi dem daaru salaam ci maam Cheikh Anta moom fa jógee daaru mànnaan na dem fekk fa maam Ceerno Ibra Faati borom daaru foofee lañ ko jële ngir indi ko njaareem ba jaare ko fa yóbbu ko gànnaar <coughs> jotuta àgg Tuubaa bi mu ñëwee fii nag bañ jëlee ko fi ci xaaju guddi di ko yóbbu gànnaar nga xaay ñi ngi jaaree ak moom Tiwaawoon fa la jullee suba kër sëñ Maru bëggee taalibeem bu mag bu siiw boobu nga xaye fa mu suba def nañ fa jumaa dañ koy màggal at mu ne jamono at mu ne dañ ma fay woo ma toog fa di fa def ay waxtaan ci sëriñ Tuubaa ak sëñ Maru bëggee fa la jullee suba boobee sëñ Tuubaa di dem nag ñu di ko yóbbu la suufas njaareem jooy ci baatin wax ak sëriñ bi ndax dégg nga sëñ Moussa naa ngir ñoom dañuy wax ak lu nekk lu lu yàlla sekk jàngal wa in min say te bul ko sikk waaw suuf see wax ak suufas njaari ma wax ak sëñ Touba ne ko damaa defee ne da ngaa ñëwoon ngir defar ma waaye xaw moo ne da nga jaar rek dem sëñ Touba teg ko loxo ci baatin ne ko muñal maa dem maa ngi ñëw suñ demee ba ci la sasin danaa del si fi yow su ma amee ci yow juróom-ñeenti at danaa def dinaa moob leer <coughs> fu leer nekk rek ci yow lay jóge moo tax dinaa moob bi fii la ne fu ay fii la fa dem waaye dynamo baa ngi fii loxoo xitaab bi xaamatal sa sëñ la daa buqaat yi la tii tuniirul bala daa loolu sëñ Tuubaa bind kon lii leeral addina di leeral réew mépp mi ngi fii ci njaareem fii la ko sëñ Tuubaa def jumaay njaareem ji fi la dynamo bi nekk suuf sa njaareem door a dal ne rëm kon sëñ Tuubaa moom waxoon naa ak suuf si ba moom dana fi dellu si waaye ñoom defe nañ ne ñoo ko fi indiwaat moo tax biñ ko indee nag ba mu am fi juróom-ñeenti at muy tël sa la mu diggoon njaareem mu def ko ko ab jullikaay la boo xam ne moo nekk diggante jumaa ji ak daari kaamil jumaa ji ak daari kaamil jumaa njaareem ji ak daari kaamil yi njaareem ji seen diggante am na jullikaay bu fi nekk guya fa nekkoon dañ koo dagg bi ñuy karo waaye xeer waa nga fa ba tey moom aw doja nga fa jullikaay boobu la sëñ Tuubaa julli waxtu yor-yor la mu diggoon njaareem foofu la ko ko joxe maa ngi mbind mi ak la sëñ Tuubaa wax ak njaareem lépp bés mi ngi man wallaay al asim waaw xam naa ko bu wér waaw mu wax ak wax ko lam ko diggoon lépp mu jox ko ko mooy juróom-ñeenti ati njaareem te at moomu ci la màggal ak Tuubaa juddu at moomu ci la màggal ak Tuubaa jubbu tal sasin rumtu sukoor alaahi sil jaleeli min tal sasin bi sikri wal adaali la sëñ Tuubaa bind rumtu sukoorallaahi sil jalaali min tal sa sin bi chigri wal alaali tal sa sin mooy juróom yenti ati njaareem ne maa ngi sàkku sant yàlla ci tal sa yàlla may aji màgg ja rumtu sukoorallaahi sil jalaali min tal sa sin bi chigri wal alaali nag la koy la koy màggale bi chigri wal alaali bi sigri ci jàng alquran bi chigri ci sikar bi sigri ci jàng xasaayit bi sigri ci tudd yàlla wala xalaali ak lépp lu dagan ci lekk ak araam lekk lépp lu dagan ci lekk ak naan bi shikri wal alaali loolu mooy màggal jàng alxuraan ak bernde loolu mooy maggal bi shikri wal alaali waaye bayit wa ko jëkk nag daf ne raddaliyal muhiidu xaama xal sa si maalalla anii xablu ama jëy sa si sëñ tubaa nee na la ma réeroon ba ma jóg ca jay sas di ko wuti xal sas lañ ma ko yote juróom-yetti ati njaareem lañ ma ko yote fii la ko taxoon a jóg ba mu dem ci géej gi ñu andi ko mu am fa juróom-yetti at yu manqué tuuti ñuy bu ko gànnaar mu am fa juróomi at ñu ni ko ci yéen jolof mu am fa yeenti at ba ta atam juróom-meel la ñu door ko andi njaareem ba mu am fi juróom-ñetti at la ko taxoon a jóg lépp ñu door ko ko yót fii la jote la ko taxoon a jóg fii la ko jote moo ko bindal boppam duy waxi murit wala yu waxi daanukat raddaliyal muhiidu xaama xalsasi yàlla may muhiid aji delloo ja andil na ma la may taxoon a jóg ca jay sas waaye xalsas la ma ko andil mooy lonk laam siin su siin su tooy junneeg ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett radday leel mu hiilu xaama xal sa si maalaal la an nii xablu ama jëy si si la ma réeroon ci jëkk jëy sas la ko taxoon a dem ca géej ga fii lañ ko ko yóte mu ne kon nag santa ma war kon rumtu sukooral laay sil jalaali mintal sa sin bi sigri wal alaali mu door a digle màggal gi ñu di ko màggal def na ko fii lu mat juróom-ñaari at wala juróom benn door a dellu Tuuba ñu nekk fi di ko màggale kenn ku ne di ko defee ci sa kër bernde diirab li fi Cheikh Moustapha nekk fukki at ak juróom-ñett Cheikh Moustapha al Karim mu ko jëkk a wóotu bi mu delloo ci boroomam 1945 46 47 48 49 sëñ Fallou tàmbali màggal gi ne nañ ko indi Touba di ko defee nag di ko defee si fi moom sëñ Fallou ko yóbbu Touba waaye ku ne sa kër nga ko daan defee kon njaareem noonu la fi ñëwee waaye fi la jógee itam delluwaat nag Touba ci boroomam ñaar fukki fan itam xarit fukki fan ak juróom-ñett di bisu altine la dellu ci boroomam ci ëllëg sa di talaata ca guddi ñu yóbbu ko Touba ci barabam boobee nga xëy moo ko sàkkaloon boppam ndax fee mu tëdd ci biir jumaa ja foofee sëñ Touba ko sàkkaloon boppam soo demee ci taarixu jumaay Touba bi sëñ Mat Lamin Jóob da nga ne bind da ca fekk loolu ma la wax sëñ Mat Lamin ne sëñ Touba moo woo. Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim mu ñëw moo sëñ Aliou juuf sëñ Aliou sëñ Mbacke juuf Baye Mbacke Diouf mii mu ñëw mu ñëw wool sëñ Baye Aliou Sey ñooñu la woo dal di jël ak buum xasab ko ci loxol boppam moom xaadima rasul nam bëgg nee bi yaatoo ne ak nam bëgg mu gudde ni fas ko teg ci loxol sëñ Modou Moustapha ne ko àndal ak ñaar ñii Aliou Seye Mbacke Diouf ngeen dem Touba fa bépp ga liggéeyal ma fa néeg boo xam ne nii lay bindoo <coughs> bu ngeen ko liggéeyalee nag bu leen ko wutal caabi bu leen ko wutal bunt wala bu ngeen ko wutalee bunt da ngeen ko te indil ma ubbikaay ga ndax maa fay ne ëllëg maak samay amti ati maag samay téere samay bagage te damay bañ ñuy ñëw ëllëg di liggéey si jumaa ja tey jëfandikoo poon damay bañ ñu gis ma maa ngi mbind mi kon poon moom ku dib jullit waan nga koo wattu rawatina nag ku dib murit gannaaw sëñ baa moom nee na day bañ kuy jëfandikoo poon gis ko maa ngi mbind mi lu ma la wax rek sama loxo ca bind wa kon kon wax dëgg yàlla euh, moom noon noon noon noon barabam boobe mu wutal ko boppam moo tax bi nga xamee ne dellu na ci boroomam altine jooju fukki fan ak juróom-ñett talaata fukk ak juróom-ñeent ca guddi ñu yóbbu ko foofe mu wutaloon boppam fa lañ ko def fekk na liggéey na kër gi ba noppi waaw kon tam la fi ñëw tamxarit la delluwaat kon suñu amee tam xarit Cheikh Mountakha Mbacké nekk fi di Serigne Touba tey ba noppi di Serigne Bassirou te daa nekk sëriñ Serigne Bassirou fii ci tamxarit kon loolu ak cant lay doon ci nun kon noo ngi sant mbooloo mépp di sant jullit yëpp rawatina ni ñuy siyaaree kër sëriñ Mor Mbaye Cissé te ku ne xam na ne siyaare ci bis bi aji baax ak siyaare boroom xam-xam ak jokku bokk loolu lépp dañ ko cee digle sëñ Tuubaa bind nañ ko ci masaalik sum salli sil sur xaaliman hud waktahil raxsal yetiin mim sax tasaddax waxtasil wasi alal iyaali xalim sufra wa suurtul xilaal si an fantaqra muy bay di sama tur fukk ak yaar kon surxaali man ci la bokk ñu fekk nag sëñ Mor nekk fi di xaalim ba noppi nag di xaabit waaye di xaafis itam nag moom sëñ Mor Mbay Sise xaalim la xaabit la xaafis la waaw kenn wérantewul ne xaalim la kenn wérantewul ne xaafis la kenn wérantewul ne xaabit la kenn wérantewul déet ne murit saadex la waaye waaye yu kaamil la itam te mu doon ko ca way juróom wa maam Njaasi Siise doonoon xaalim di di xaafis di wali yu kaamil ndax maam Ndiassé ña ko xam dëgg xam maam Ndiassé sëñ Mor moom jaaxalu leen ndax maam Ndiassé moom da doon wali yu fànga moom mbiram dala koy won fi moom fi saasi la la la lay wax lim lay wax fi ndax ka doon laaj laañug diingat marché la woon du ci kër gi marché booba bente ñe daa am ci kër compagnie buntu kër compagnie bente ñe goo xam ne magi kër maam Serigne Touba yi ak magi maam Cheikh Ibra Fall yi bu ñu masaa dem marché fa la ñuy daje di waxtaan fa la ñuy daje di waxtaan bañ fa dajee nag ndongo loole ñëw fa nuyu leen di laaj laajug diingat ndax laajug diingat daa am ba mu leen nuyoo ba noppi ni leen daa amoon lu may laaj ñu ne ko lu mu mu ne ku dul jullit du woorte ne jullit la ak yéen kan ngeen def muy borom jamono ñaari laaj yii laa am. ñu geesu seen sëñ Ndiaye Cissé muy ñëw bàyyi sëñ Mor Mbaye Cissé Ibrahima Cissé la tudd mag ñi daa ko wax Brahama joor waaye sëñ Tuubaa moom Ndiassé rek la ko daa wax. ñu ne ko négal ba sëñ bee agsi bi mu am Ndiassé agsee ba nuyoo ba noppi toog ñu ne ko sëñ Ndiassé de ndongo li daa am lu muy laaj mu ne ko ah, njool da rondu si lu mu woon mu ne ko man di ku julli du woorte nit julli la moom laay laaj ak yéen kan ngeen def muy borom jamono. maam Ndiass ne ko jàkk ne ko ah yow am nga leneen loo war a lijjanti lu bokkut ak li ngay lijjanti yow kees nga dëkk kees jàngeen nga dëkk mu a ko ah mu ne ko démb ba nga añee ca sa kër ba noppi da ngaa dem marché kees jënd fa sàngara naan waxal dëgg de góor sa na yàcc mu ne ko sàngara si nga naan mi ngi ci sa diggante yaari der wu xonq weeg wu weex wi may jàkkaarloog moom mi ngi nii sàngara saa ngi daw ci sa diggante yaari der yi yow war ngaa am leneen loo lijjanti lu bokkut ak lii nguur sa day mu ne ko ki nga xam ne moo xool loolu bay ba won ko ko mu gis ki gis sàngara si nga naan démb ca kees nag mooy ki nga xam ne moo yées ci taalibe yi borom jamono. taalibe jamono nag moom moo moo gis loolu maam Ndiass nee na ba mu ñëwee sëñ Tuba yedd na ma ci. amul kum nee na Ndiass sëñ Tuba nee na ko Ndiass mos na xam yëfi gone yooyu ba yóbbu ko ba tey nga yooyu yëfi gone de doy na waar. gi sàngara su nit naan. démb ca kees ba añee ba noppi yow nga jàkkaarloog moom Sëñ Tuubaa ne ko njaase yëfi gone yi bàyyeegu leen ko <laughs> ah <laughs> gone yi Sëñ Tuubaa ah, noonu lañ mel <laughs> ah kon ñooñu ñooñu ñu ñu ñu ñu ñu doy waar lañu waaw waaw waaw noonu nag lañ mel ma gis Sëñ Tuubaa yi ñoo ñëpp noonu lañ mel ay wàllu yu lañu sëñ tubaa ku ko fi teg rek danga dul wàlliyu da ngay boroom xam-xam xam-xam nag day baari nit moo tax sax wax na leen ko waaw xam-xam bi bu mu tax ngeen ñàkk ñëw jox ma seen bopp liggéeyal ma waaw ndax xam-xam day baari nit day ay bët la moo tax xam-xam day ay bët day ay bët jaxaran yooyu gisee waaw yor say bët nag ñu ne la waddal daanu ci teen bii gëm gu mat sëkk ma tax nga def ko Cheikh bi Fall ba mu ko ba mu koy ba mu ciy nattu aw nit ku ñëw mu mu ne la demal daanu ca teen bee waaye ka nga xam ne moom ba ko ko Cheikh waxee nattabliwul dafa riir rek dem juutal boppam ci teen bi ca lal ba ca biir néeg bi Ibra lañ dégg mu daanu cab lalam ci biir néeg bi waaye googu gëm na nga yombut xam nga gëm yi ay escalier lañ waaw gëm yi ay escalier lañ yi ay escalier lañ ci la nit ñi di rawante gëm yi ay escalier lañ ci leen nit ñi di rawante moo tax euh, sëñ sëñ mat dem moom sëñ Touba mii nga xaye moom laay wax naan leerug xam-xamam mooy dox ci réew mii maa mi sëñ Abdou si Cissé mii ngeen jóge jataay yi mu fekkee sëriñ bi te bind ko muy ab téere dafa wax ne am na bis boo xam ne sëñ Touba dafa wax ne ku ma def dëgg ngoogu ku ma jàppe may wëlli yu bu saa taxawee ndem wàllu yi def taalibeem ba mu gërëm ma def na la ku ma jàppee ab yonant bu saa taxawee ne wàllu ne taalibe ne yonant di def taalibeem ba mu gërëm ma def na la ku ma jàppee yàlla it te mu ci sam xol bu saa taxawee yàllay def jaamam ba mu gërëm ma def na la kon gëm yaa ngoogu sëñ bi foo ko teg rek mu teg la fa moo tax gëm yi ay iskale la ku ne ak fa sa gëm toll bul toppandoo nag ki nga xam ne moom fa gëmam àgg yow sa gog àggu fa soo ko defee gaañu da nga gis ku mbëkkam taax léegi wala mu mbëkk a garab dara du ko jot yow nga mbëkk ko sa bopp dàcc te boo sàgganee sa bopp toj da ngeen a bokkut pas-pas waaw bokkul leen pas de que la ëpp pas-pas du gaañu li ma doon wax léegi ba bésab tey jii sëñ Abdou Xafóoru Mamor Jaara na yàlla doole leeram am na taalibeem boo xam ne bi bésab tey ay doomam ak i dañuy baxal am ndox bu leen jël bi ñëwee dañuy baxal ndox dañuy taal de jël kaw gi teg ci ci ni teg ci sotti ndox ba mu fees di xam ba mu bax ñuy tàng di sotti seenu yaram ba bisab tey wër na sëñ Touba lu sama bët tegee la du luñ may nettali kon kooka bu ko toppandoo di sangoo ndox mu bax kon bu sàgganee ñu yóbbu la waaw kon lenn lu yem amut ñëpp a moom ay caaxaan la ku xamul rek a koy wax loo xamul am na ku ko xam loo amul am na ku ko am loo mënul am na ku ko man waaw moom ku sañ na ko waaye kenn mënul déedéet aw ma it manees na ko waaye kenn amut déedéet wala xaw ma sañees ko waaye kenn xamut déedéet loo xamul am na ku ko xam loo mënul am na ñu ko man loo amul am na ñu ko am kon nan bokk góorgóorlu waat bu baax delluwaat seet soññ bi nu mu Muntaxa joxoon ci tawat jii nga xaye noo ngi ñaan suñu borom jëlee ko fi ci at mu yees mii mu dem faawu génn addina jépp nag addina jëpp mu Muntaxa daa waxoon ne tawat ji moom lu ko waay wax tooñ ko ndaw la luñ yebal te liñ koy sant mi ngi ci nun nan seet ba xam liñ ñu sant noo ngi ci am déet waaw ah, nan nun nag noo war a seet nun suñu bopp ba xam liñ ñu sant nun noo ci wala nekkuñu ci buñ ci nekkul nu daal di ciy ne nit day wisit boppam ba xam lam war a ne ma nga ca wala nekku ca <coughs> kon nan wisit suñu bopp ci at mii nu génn wisit suñu bopp ci at mii nu dugg at mii nu dugg génn loonu ci jëfoon te loo te loo xam ne du loon war a jëf nu fas yéene tuub ko te bañ koo jëfati mukk ci at mu yees mii fas yéene moom buy dem bàyyi nu fi te yóbbul nu ay yóbbul nu ay ngërëm ni fi ni at mii ni mu fi bàyyee moom it su ñëwee at mii ñëw nii tey di ci fukki fan képp moom it nu fi bàyyi ten fexe nag ba mu yóbbul nu ay ngërëm man nag moo tax sama sang ba rek laa roy mooy sama royukaay di sëñ Mor bay Cissé mooy sama tëri ci laay jaar moo tax nag man aw ba bis sama bokk yii dañ ma ciy reetaan mbokki ngéyeen yeeg mbokki Baay Faal yi ak bokki makki-makke yi ndax ñoom dañoo ami bis ay gaawoo ki dibee rek ñetti fan ak ñeenti fan ak yooyu man nag aw ma bés nee naa leen man aw ma ndax maag bés yee bokk boroom fi mu ne aw ma bu mooy bañ aw ma ko de waaw wóor na yàlla ak sëñ Tuubaa aw ma bés man maag bés yee bokk boroom bis bu ne daal xam naa lu mu bëgg xam lu mu bañ bis bu ne xam naa li bis bëgg xam naa li bis bañ loola nag danaa ca def la ma man ca lam bëgg lam bañ danaa ca moytu la ma man lépp itam bis bu ne bëgg na ko def ci moom lu baax bis bu ne ndab la bëgg na ku def ci moom lu baax bis bu ne ndab la bañ na ku def ci moom lu bon lii daal leer na ma bis bu ne bëggut ku def ci moom jëf ju bon bis bu ne bis bis bu ne bëgg na ku jëf ci moom jëf ju baax loolu daal leer na ma moom kon nag la may jéem moom bis bu ne ma def ci moom lu baax rek suñ borom it ma di ko ñaan mu dimbale ma ba bis bu ne ma bañ caa def mu di ma yóbbul lu bon ndax ndab lenn ndab lu bëgg nga def ci moom lu bon amul sama sang ba da daa wax naan moor moom talaata du ko ganale mu di ko dencal àllarba sëñ Mor Sourang mi ñawal ma mbubb indi ko bisu talaata ma ne tey talaata du daloo di ko dencal àllarba déedéet sëñ Mor ne du ma def loola bis ma bis bi ma teral ci laa koy wan ne ko yaa ma teral teraanga ji dama koy sol waaye talaata ganale la nga ne àllarba laa koy dencal ndax lan àllarba daa gën talaata déedéet bi si gënante wuñu ci mbir mu demee noonu nii mën nañoo magante nag. amante nañ ay kilifa it ndax ajumaay sangab kilifa yi mooy mooy mooy sangu bis yi waaye nag dibéer ay seen mag dibéer la yàlla jëkk bind moo tax muy benn booy wàññi ci benn ngay daane yow mal koy sanc wala ngay def dara addina ji sax ci bisu dibéer la ko yàlla sanc ci la ko bind itam kon dibéeram ak ci bés yi ajuma nag mooy sang bés yi war a fanaa bawlum faw xa baxalin dara jaatin yàlla ne yëkkati naa ay daraja ñu ko we daraja yi ñu ca des nit ñi sax yemuñu li mooy li ma doon wax ma dellu ci dara yemut lenn lu yem amut kon nag ñu ngi siyaare ñëpp di sant ñëpp di balu ak ñëpp di bal ak ñëpp di ñaan suñu borom boole nu jéggal ci saayir ak ci baatin at mii di at mu yees doon atam mucc atam xéewal atam wér atam wërsëg atam jàmm yàlla jële fi tawat jii nga xam ne la jël na ñëpp ci barkeb Serigne Mountakha Mbacké mii di Serigne Touba tey di Serigne Bassirou barkeb Serigne Abdou Lahad Cissé sama Serigne noo ngi koy ñaan ci daraje mboolem bokki jullit yëpp nag njabootuk sëñ Tuubaa gépp njaboot ak jullit yëpp ñu njabootuk lislaam noo ngi taxawlu foofu ndax mel na ne eh, noo ngi bëgg a xaabaabal kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu ngeen baal baax